ak durus xasida Serigne Touba yi ak ay kuréel xasida waaye li ñu ëppal solo ci bés bi mooy wàllu xam-xam bi jotaayu xam-xam yi comme ni nga ko waxee léegi ñu wàllu conference yi ci ay thèmes yu am solo ak ay borom xam-xam yoo xam ne ñu jekku thèmes yi lay doon kon loolu mu ëpp solo ci bis bi ndax ku wax Serigne Touba wax xam-xam kon boo fi woowee taalibe yi dinaa bi nga leen berndalee ci wàllu xéwal dañu bëgg berndeel wurwu yi mooy lu ëpp solo ci bis moo tax ñu taawal ne thème mi am solo ak waxtaankat yu mag ñu ko mën a waxtaanee taxawee ko taxawin wu rafet waaw suñ la ndax mën nga ñoo wax ci ndorteelu lii nga xamante ni mooy bis tuuti waaw bis bi bi mooy cinquième édition waaye daayira bi njëkkeewul bisub xasida ndax daayira bi ñu ko sos en 2004 bañ ko sosee Serigne Salih Mbacke yàlla na suñu borom yokk ay leeram moo ñu joxoon tur ci ba ñu demee ziar ko jëbbal ko sunu addiya bu ñu joxee tur mu nañu bu ngeen demee ni ngeen yaatal ci kaw yaatal boobu nag ñu ngi tàmbale woon di def ay cant ay cant yoo xam ne guddi lañ ko daan taxawal bu demee ba jamono soppeeku nag ñu soppi daf koy bisu xasida bëccëg bi ngir mu gën a yaatu nga xam dañ koy yendoo bu guddi boobu ba léegi nag bi mooy cinquième édition bi ñu koy taxawal nii nga ko gisee ak anam bi nga ko gisee comme ni ma ko waxee léegi rek jàngam alxuraan bernde yëkkati xasida yi ak dundu la rawatina ci wàllu woowu nga xam-xam euh, ndax dafa feeñ ci ba ci thème yi nga xamante ni moom ngeen jël jagleel ko li nga xamante ni mooy bis bi mu doon thème am solo yoo xamante ni ko dégg rek day mel ni dina la waaw waaw am solo comme ni ma ko waxee woon léegi rek wax wax xam-xam Serigne Touba mooy xam na buñ fi dajalee mbokk taalibe yi ñu waxtaanee leen ci xam-xam loolu moo tax ñu tànn thème yu am solo tànn ñeenti conférence yi jëm juróom xam ne thème bi ci njëkk Serigne Lamine Sow ku ne xam na ko mu daan ànd ak seen Maam Mor Mbacke ci tournée yi mu daan def moo koy njëkkee muy thème média et société muy thème boo xam ne daal def ci jàngat média yi léegi yàqu-yàqu yi nga xam ne moo ci nekk rawatina réseaux sociaux yi yan solution lañ ci war a jël rawatina ñu jullit ak mbokk su ko defee moom suñu waxtee seen biir Abdou Khadre Samb bu xam na ko xam xam-xamam bu leer rafet moom mu ñëwoon ci nga xam ne mooy parrain bis bi Serigne Abdoul bu sëñ ñu wax sëriñ Abdou Ahad la bâtisseur ñu bari bu ñu waxee bâtisseur dañuy jàpp na rek tabaxkat ay bâtiment la te li sëñ Abdou Ahad liggéey weesu na loolu day defar ay ruu ku xam ne li mu liggéey ci wàllu xam-xam bu bëgg moom waxtaan ci fànn boobu bu ñu demee ba ca ngoon gi ku ñu wax sëriñ Babacar Mbour mu borom xam-xam di chercheur mu ñëwoon ci beneen thème bu am solo mooy mouridisme et politique mooy refus d'alliance de Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul enjeux et perspectives maanaam ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa bañ gi mu bañoon nooteel moo ko jural lii coono yi mu am yëpp ci àdduna ak nattu yi léegi nag gannaaw ba mu daanee tubaab bi ñun nan la war a mën a def ba conserver flambeau victoire boobu ak yan jàngat lañ ci war a am ak enjeu yëpp ñu jàngatal ñu ko su ko defee su noppee amaat nañu beneen borom xam-xam bu docteur Serigne Saliou Samb di journaliste mu tamit di borom xam-xam bu yaatu mu indi ñu beneen thème boo xam ni mooy mouridisme et communication yan stratégie de communication fii jamono toll ak ni ñuy attaqué yoon bi ak islam en général kon taxawee lañ ci war a am ci yeet nit ñi ci communication ku ne xam ne léegi ba tey àdduna bi ñu communication la te xam-xamam màcc na ci fànn boobu mu ci ay leeral yan stratégie de communication la ñu war a am pour faire face aux attaques contre le mouridisme jërëjëf mbokk yi mu doon seen xam naa incha allah comme la Touba Vision di wéyee di ànd ak lépp loo xamante am na fii ci géejuwaay ci bis bi nga xamante ne daara Miftahul Sahada ñoo koy am mu doon bis bu am solo boo xamante ne ku dégg programme bi nga xamante ne wax nga ko rek euh, di nga jàngataat ko ñoom kat ñu ngi teg seen tànk fu mat a tege muy taxawal bis waaye génne ay xeetu tam yoo xam ne képp koo xam ne ñu ci teew rek ñu a a jëlee a am na fi rek ñu indi leen comme baskan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu